Euh, honorable député Sanu Dione waa léegi ñu soobu ci waxtaan bi waxtaan bi dañuy jiitu ci assemblée national semaine bi weesu yéen euh, ak ñoom Guy Marius ngeen am loo leen fa namoon ñu interdit leen ko ngeen dem ci biir assemblée euh, di fa ñaxtu loolu tamit du jamais vu ñu gis ay député yi taxaw di manifester ci biir assemblée lan moo leen naqadi woon ba tax euh, ngeen daje woon di mettre lu doxinu assemblée nationale. waaw wax nga dëgg effectivement xama Sénégal moom lu musul am mu ñu ko gisee dañuy jaaxle. c'est vrai que du ñu syndicat nag ah nous sommes des parlementaires yoo xam ne en vérité population bi nañuy représenter donc ci li yoon sax mooy chaque fois war nañ def compte rendu de législature chaque trois mois ou six mois ñu ne population bi kat li taxoon nga yóbbu ñu assemblée nationale lii la. est-ce que préoccupation askan bi ñu ngi koy jël en charge est-ce ñu koy posé parce que nekk député aussi honorabilité la wax dëgg yàlla li ci lalu yëpp mënu nekk rek confort dafa laal liggéey donc euh, tey bu ngeen amoon lu leen lu leen tey bu ngeen di manifester si seen liggéeyukaay ngeen koy manifester ñu gis ne bi ñu ñëwee assemblée nationale ba léegi dafa am loo xam ne mooy suñu mission mooy voter ay loi ñu jóge ci vote la loi des finance bu duré woon métti woon trop ñetti weer. mais aussi am na contrôle ak évaluation des politiques publiques loolu bokk na suñu liggéey ay question d'actualité parce que règlement intérieur moo ñu wax ne député bu ñëwee lii leen ko njëkk a jox muy guide député pour wax la yow lan mooy sa liggéey ñu xool ne suñu liggéey aussi am na ci li nga xam ne mooy contrôle lu gouvernement bi parce que nit ki nag doo ko jox dépense bu noppi ne ko defal loo neex voté nañ leen budget budget bi ni nga koy exécuté ak problème yi Sénégalais di jàkkaarloo bés bu nekk. da nga ko reposer ñu ne ci constitution bi gouvernement war na ñëw di toog assemblée di ñu ngi koy poser ay questions orale ak question écrites ay question d'actualité maanaam lu mujj am ni nga xam ne daf bind nañ ci mooy événement bi am ci affaire Sonko bi ñu toj vitre bi ñu naan dañ ko dañ protéger wala dañ ko protéger ñu naan am nañu ko bëggoon rey bu ko rey mais loolu dafa laaj nga bind question écrite ministre de l'intérieur mu ñëw expliquer lan la. ak lu bari ñu gis ne bi ñuy assemblée ba léegi boo ko xoolee ñu ngi ci dix neuf ñu ngi ci dix neuf euh, questions écrites xam dañu bind laaj ministre yi wala de se lii la lii lu ngeen ci xam. dégg nañu nangam. parce que député aussi warul jékki-jékki rek dégg ci mbedd mi rek wax donc li gën mooy comme nous sommes des lu ñuy wax dafa war a am source. dañuy bind. jox ko ministre bi ne ko lii nu mu demee. maanaam dama jël benn exemple affaire ndox mi. ndox mi gis nañ ne ñu ngi koy naan couleur bi doy na waar. ñi naan baax naag baaxul suñu suñu mission mooy lan dem gëstu ne leen ndox mi ndoxu lan la ci wax ñu jox ñu information ñu leen jox ñu jox leen ñu analyse u laboratoire bi ko def bu ñu ko joxee ñu jël échantillon ñun tamit suñu liggéey dem Europe dem fu nekk. vérifier ñu tamit ba am suñu preuve bi ne ministre bi ne ne ko yow lii lan la bu ñu tontoo ñu ñu indil ko ay preuve moo nekk ndox mi ñuy naan am na problème wala wala amul problème xam nga loolu. Mhm. ci luy war a gëstu la ñu koy liggéey biir assemblée comme yeneen ay yeneen. am aussi ay questions orales yoo xam nag dañuy woo ministre bi et puis loolu constitution moo ko wax boo xoolee constitution bi fii dafa la wax ne la chaque quinze jours. un jour au moins par quinzaine déterminé à l'avance est réservé au questions orales un jour au moins par semaine est réservé aux questions d'actualité un jour au moins réservé aux questions d'actualité et le gouvernement est tenu est tenu d'y répondre c'est obligation le gouvernement bi ñëw assemblée toog tontu tontu député yi suivant li mu ñu tontu ñun tamit ñu jël loolu dem gëstu ji ko ndax li mu ñu wax parce que bu dee da koy wax nii rek te toogul ñu enregistré ko Sénégal yi dégg ko du ñu gis ne président di ñu bind yëpp daal bi ñu commencé ba léegi. Mhm. du da sax tontu. président assemblée. du da tontu te daf ci am yoo xam ne nag ñu gëm ne am na complicité Macky Sall. lu tax moom parce que mu am séparation des pouvoirs. waaw moom loxoom lan la ci mën a nekk. parce que bu ñu envoyé question écrit oral moom da koy jël convoquer le bureau de l'Assemblée nationale convoquer la conférence des présidents ñu waxtaan ci da koy envoyé aussi au président la République pour avis. ñaari si nekk ou bien président daf ko ne bloqueel buy tontu ou bien moom moo jël initiative ne ne liggéey du am donc seetlu na ne assemblée bi ñu ko ubbee ba léegi ñeenti yoon la convoqué. Mhm. benn bi loi de finance c'est normal. bu ñu ubbee assemblée. benn bi il faut ñu def calendrier. ñaar yi nag mooy bi ñu xëyee ne dañuy dàq suñu ñaari député yi. mooy yu pur yi. yu pur yi. Mhm. beneen bi mooy bi ñuy dàq Aminata Tall. Aminata Touré Aminata Touré te Aminata Touré. du dàq de dafa dafa jox dafa jox infor convocation information maanaam tey rek Sanjogu ne eh kaay leen am na lu ma leen lu ma leen xibaar bu leen di jox xam nga xibaar bu la jox information la. waaw bokkul ak gars yi kaay leen ñu waxtaan ci benn dossier dossier bi dafa am vote. xam nga loolu c'est deux choses différentes. ñu woo leen rek ñu ñëw séentu naa mu ne leen Mimi Touré kat jot naa benn information dañ koy dàq ñëw ko déedéet loolu de loolu loolu du information. maanaam yéen da ngeen bëgg wax lépp lu leen ñor. yéen opposition bi ñoom taxawuñ ci dañ koy sàggane mais lépp loo xam ne ñoom yitteel na leen ñoom taxaw nañ ci mu yegg mais façon bi ngeen ko xeexee ci assemblée maanaam daje boobu ñu bëri jàpp ne dafa am inélégance sax parce que euh, Guy Marius moo leen yóbba yóbba yóbbu ci rythme quoi parce que des députés qui tiennent des sitting à l'assemblée non ñun dañoo jëlee benn décision xeex. Hmm. mooy li ne premier jour parce que assemblée li ngeen xamul mooy luñ fa xase voté mu jaar ba ñu amul benn. instance bu koy def boo demee cour suprême ñu la suñu yoon nekku ci nga dem ko ñu ne seen yoon nekku ci donc assemblée lu ñu xam mooy lu ñu foog xase wootee pare nga ci yow muy dëgg ak dëgg tribunal boo dem ñu ne mun ñu ko àtte moo tax premier jour bi benn problème la ñu opposé ak ñoom xeex ak ñoom. Mhm. population bi ne xeex baaxul xam loolu ñuy wax. bi mhm. ñu ñëw mais ñun dañuy fay. Mhm. dañu war a liggéey mais on a constaté ñu ngi ñuy fay mais te liggéeyuñu ñu ngi liggéey bokk. ñu ngi liggéey parce que euh, on a fait plus de trente neuf sorties yoo xam ne ñu ngi koy def ci institution yi. mais gis nañ ne comme que liggéeyu ñu léegi lan moo def nañu informer population bi leen attention kat suba bu ngeen déggatee xeex xam ne lii moo tax parce que nag def nañu def nañu ay liggéey président nee na du convoqué président nee na gouvernement bi du jàkkaarloog ñun président nee na. Mm-hmm. waxuma sax du ngeen liggéey oto yi ñu war a jox yi ngeen war a liggéey maye na ko. yi nga yi fi nekkoon membre de bureau yi aussi maye na ko bureau yi ngeen amoon am ay ordinateur yooyu aussi yóbbu nañ ko fi ba nekkoon dagg nañ ko mais de en vérité yow da ngay ñëw assemblée d'abord wax dëgg yàlla oto oto du luxe. Mhm. nécessité la waaye. ñu ne dañ lay jox indemnité de transport tey ñi dëkk ci ay meewaar nag yooyu session oto boo loué soixante mille francs par jour dix jours ça six cent mille. wax dëgg yàlla doo jël ay transport en commun ñu ne ko d' accord banque yi ne d' accord jël leen seen jël leen seen euh, seen euh, indemnité ak benn attestation buy waree ne indemnité bi kat c' pour le mandat comme ça banque bi dina engagé wu lebal la xaalis yow nga dem jëndi oto ba ñu jox ñu ko mu dem mu ne sax indi attestation du ma leen ko bindal parce que su ma leen ko bindalee banque bi danañ lebal xaalis. gis nga problème bi léegi. kon yéen waa député yeew yi dañuy takk seen biir. assemblée quoi non partout. léegi ma jox saa léegi pour que ñu mën a évoluer waaw. macha allah wax dëgg fa yàlla. Euh, honorable li nga wax nii euh, baax na. parce que gindi nit ñi ngir ñu comprendre exactement li nga xamante ni bii mooy yëf yi ni mu tëddee parce que li nga wane ni mooy yéen ngi liggéey wal bëgg ngeen liggéey ñu leen di galgal loolu moo sabab keroog taxawaay bi nga xamante ni bii moom ngeen amee parce que tamit li nga wax ni man am solo gi mu am solo sax parce que le fait que ngeen ne ndox meeg yooyu saytu ndox mi euh, ndax baax na wala baaxut parce que nit ñi yàgg nañu revendiquer ne ndox mi baaxut am na ñu bari wax nañ ne ndox mi liy ñëw seen kii ak day daw biiru gone yeeg day def lii day def la le fait que ngeen ni ngeen tëralee kii pour liggéey maa ngi soo a gis ay député yoo xam ni euh, nii la ñu taxawee ngir fas yéenee liggéeyal seenam réew man moo tax damay wax ne euh, kii bi man pour man ñooy ñi nga xamante ni bi ñoo nar a gën a sonal mbir bi est-ce que nekkul nag yéen fi mu toll nii xam-xam bi ngeen am ak bañ a nekk député yu taaj ko rek naan way way way loolu mooy seen problème en face ñi ngeen am ñoom li ñu bëgg mooy bëgguñu liggéey moo tax ñu galgal leen parce que bi ñuy wax naan oto yi du am ak lii du am ak yooyu yëpp euh, parce que li nga wax ni banques yi pare nañ pour lebal leen mais ñu bëgg leen a galgal pour bañ leena a jox sax association pour ngeen mën a leb loolu dafa mel ni yéen dañoo bëggul seen dara dox léegi nag li ngeen def keroog lenn la ci xeex mais nan yan plan ngeen war a tëralaat yoo xamante ni bi yaakaar ngeen ni bu ngeen ci jaaree li ngeen di xëccu war ngeen cee mën a jot. effectivement xam nga li moom plan A bi. Mhm. dem wane def demande man maa bind d'autorisation man Birame Souleye ak. Euh, ak deuxième questeur. Mhm. déposé suivant les normes. comme toujours rek ñu xaar bañ ne suba la ci 19h ñu woo ma ne ma autorisation baa ngi nii préfet bañ na. bañ na waaw man dox nga bañ. mu ne ma trouble à l'ordre public man ko mën na ko 53 <laughs> députés ñeen sax nekkuñu fi ñu ngi extérieur ñii ñu ngi mission. sénégalais yi aussi waaw. vous de combien. de man li ma gis ci élément bu ñu jàllale ci benn télé ci journal. matul sax genn wàll sa. y' a 15 députés qui sont de la diaspora. Mm, am nañu nekk 15 députés yoo xam ne. waaw effectivement non c'est important am na quinze députés yu nekk diaspora. Mm. pour nu première manifestation. Mm. bon jël billet d' pour ñëw dañ ne mën nañu ko l'essentiel rek dañuy yëglu. d'accord na députés yoo xam ne aussi euh, ñu ngoon ci. ay activités ay activités ay missions ñi am ay gànnaaw mais ñun c'était loolu moo taxoon ñu ñu ne ko loolu tur mu ne ko. bunt bi ñu koy defee foofu kenn fa taxaw buntu assemblée nationale foofu amul sax ku fay jaar. Mm-hmm. donc donc loolu mu def nii def nanga mu ne ok ne dañu bàyyi mais biir assemblée yoo ko moom du ko biir assemblée GIGN sax GIGN. Mm-hmm. bokk na ci lii gën a ñaawlu mënoo jël assemblée nationale indi un corps d'élite bu mel ni GIGN muy duur du ko biir assemblée di bëndaxtaal bëndaxtaal ay député wax dëgg yàlla nous ne sommes pas des voyous. nous ne sommes pas des voyous boo mm-hmm. bu bu bu amee bu tu as l'impression guerre moo am biir assemblée nationale. te parce que fitna la ñuy yee ñoom dañuy yee fitna. xam nga fitna du ay saaga fitna mooy def ay actes yoo xam ne. day tax nit ki révolté wu. parce que man su ma gisee yu mel noonu tey wala dina benn gendarme laal ma wala benn def nangam par inconscient inconsciemment ma def lu ma warul def. xam nga gis nga lu muy jur après. waaw ñoom ñoo ñu bëgg a provoqué loo xam ne vraiment dañu bëgg a pousser à la faute. moo tax li Sanjogo am solo def nañu premier yëg bañ na. am na bu projet projeté le deux ñu bàyyi ko une semaine après mm-hmm. à cette fois ci nag préfet boobu nay dëgg mu autoriser ko bañ ko autoriser dinañ ko def mm-hmm. ñaari solution mooy am président assemblée nationale respecter règlement intérieur. waaw doxal li mu war a doxal jàmm am defu ko. dinañ defaat autorisation génn. ci moom lii ngeen lii lii réglement la boo xam ne moom moo war a veiller sax pour lii. lii euh, ñu def ko ñu respecté ko. règlement intérieur la. Hmm? règlement bi tant que président assemblée nationale. man damaa bëggoon a dellu si kañ. waaw man Seck dama dégg ko marionnette maam Diop marionnette. waaw non non ba. <laughs> dama bëggoon nga taxawal ma tuuti honorable ci dix defe naa interpellation yi ngeen wax nga ne bind ngeen ko dix neuf fois. dix neuf question question mais mais mais lan moo tax répondre ci parce que moom obligation la ci moom mu répondre wala. question yooyu wala obligation. obligation. règlement intérieur règlement intérieur bi la yor. yow bu sax. obligation. waaw <laughs> mais même bu fekkee nii règlement intérieur mais pourquoi répondre bu dee obligation. ci moom ah. man loolu lay laaj. lu ñu lu ñu tàmmul la. Ah, waaw parce que liggéey. xam nga bu njëkk ba tey. xam nga tey bu njëkk ba. ñoom dañu am majorité boo xam ne cent vingt cinq cent trente députés. waaw waaw duñ taxaw wax ministre bi yow. Uh-huh. li nga luubal wala li mu demee. Uh-huh. tabi léegi nag ay député yoo xam ne léegi nag mm-hmm. dañuy dem dossier bu nekk ñu la yee eh, lii nu mu demee xaalis bii nu mu demee boo boo xoolee ci boo xoolee ci question yi rek maa ngi wax problème mu kii da xool sur la situation du centre de santé de Guédiawaye en question depuis 2007 depuis 2007 nga joxe xaalis bu ñu construire centre de santé ba léegi mënul pare rendre ñu leen compte wax leen dara. xam nga léegi yaa ngi dossier génne yaa ngi génne ay dossiers yoo xam ne dossier bu ñu posé rek dem nañ ba gëstu ko ba téye ko nag ba pare ah yéen ngeen génnee dossier non bu ñu demandé ko ba pare doog a effectivement dañuy dem saa mi ngi lay laaj lu am solo xam naa da ko xaw a tëb tuuti muy seen seen seen plan d'action parce que nee na bii ngeen mooy seen première action bu ngeen def ci lan ngeen jëmaat demaat bi mooy déposé waat déposé waat déposé waat sitting sitting bi pare nag ñëppay ñëw te bi ëpp. waaw que ni mooy conseil des ministres décentralisé yi ñuy def mm-hmm. ci côté sud bi Amadou Mame Diop dafa yëkkati ay kàddu affirmé waat que ni moom bépp ndogal boo xamante ne nii président Sall wax na moom dafay dafay appliqué moo tax may laaj est-ce que ñoom seen sitting yi ñuy def dina dina dina dina jur benn mooy Mariotte di fi <laughs> ah déet yéen ko wax yéen <laughs> yéen a ko maam Diop marionnette. xam nga moom moo ko wax man ma dégg. non non amul may wax c'est-à-dire juum. <laughs> mooy li saa Ndiogou di ñu rappeler. waaw ñu ñoo ne marionnette xam nga marionnette. Mm. chaise boo toog nii rek. tournel à gauche tournel à droite. moom loolu lay xaar. non président rek. xam nga nag man foofu la foofu laa koy remercier. parce que moom nangu ci dara. nëbbu ko moom na. moom nangu na mais nag. nangu na wax dëgg yàlla. dafa laaj nag léegi mm-hmm. ñu wax ñi nga xam ne ñooy lanceur d'alerte yi naan fitna fitna xam nga bu ne fitna rek ñu xalaat opposition yee fit yee fitna mënul weesu lii xam nga ñaar si am ñu appliqué ko wala ñu xeex mm-hmm. bañ xeex moom billahi bu ñu deful luñ def na nit ñi wax lu leen neex mm-hmm. ñun diine ñu gëm ay taalibe lañu ñu tu bu ñu ndekkee fii Touba dañuy Touba dañuy añee ñii añee ji dama ne ñun ay taalibe lañu. waaw gëm nañu mais dama ne. muy président Macky Sall muy président assemblée su bëggee jàmm nañu appliquer. li constitution bi wax. bu ko amul xeex kan munul c'est c'est wéetuñu si de. ana waa wàllu. non waa wallu waaw wàllu ñu ngi. yéen yéen leen ñu ngi ñu ngi waxtaan ak ñoom. Mm. ñu ngi waxtaan wax dëgg yàlla ñu ngi waxtaan ak ñoom ñu ngi waxtaan. te je pense que leen ne dañ leen di tardeel wallu. nañu waxtaan rek Sandiogou xam nga waxtaan mun na mm. indi lu ne. Mm. tu as ñoom ils de l' opposition nous sommes de l' pour ñoom affaire de. waaw <laughs> Sandiogou yéen a yàqu ñeme waax. non non xam nga lu tax nit ñi di poser question. maanaam bi ñu nee am nañ quatre-vingts députés dañoo jàppoon opposition bi nguur gi am quatre-vingt-deux. Ah dañuy diirante ah, mbagg mais problème bi ñu am mooy eh, maanaam wàllu depuis leur combat boo xam ne Yewwi sumu na ko rek ñoom dañuy taxaw fee di xaar quoi. est-ce que ñoom ils sont toujours de l'opposition. waaw ils sont mais aussi mos nañu génn ni yéen da ngeen di jël seen décision rek du ngeen concerté wu du ngeen waxtaan. waaw moo tax wax nañ ko fi ci télé yi dégg naa ko. <laughs> waaw moo tax ñu ngi ah, waxtaan waaw waaw. man daal li ma leen mën a wax mooy. ñu ngi defar ñu ngi ñu ngi waxtaan. pour gën a mën a juboo. ak wàllu ak wàllu. Mm. tu ma vu. Mm. manque waxtaan ak benn bokk yaakaar yàlla mais mais mais mais honorable yow danga far da nga far ak Khalifa Sall. waaw xam ne euh, semaine bi moom boo xoolee tey yéen kaay yëpp ci leen xëy candidat bu ne jóg jëm gis nañ dekkee xalifa mi ngi ci àll bi di dox mu mi Sonko heure bi woote léegi wooteetul ci turu Yewwi mais ci turu Pastef lay woote meeting yi mujj yëpp peut-être da leen invité mais danoo gis ni avenir Yewwi Askan Wi. ba avenir boobu dañuy wax ni avenir bu incertain la maanaam ëllëgu Yewwi Askan Wi lu lu mën a xajam la parce que fi mu ne ku ne boppam lay bayal parce que attitude du Khalifa Sall am na ñu bari ñu mu gêné ci ni doxin bii muy dox maanaam day mbubboo Yewwi rek mais génn na ci est-ce que yéen seen ànd bi dina wéy yow ñoom Sonko ak ñoom seen. c'est kon ñi liirul charte Yewwi ñoo ñoo am problème c'est ñoom bu ñu juum di nga élection nag yàgg ñun yàlla daf ñu may ñu xam ko dëgg dëgg dëgg dëgg. Yewwi Askan moo ne dans la stratégie électorale bu ñu demee ba législative jeex. Hmm. na ku nekk dem uti. xam nga lu tax. Hmm. tey Khalifa Sall bu nekkee candidat moom rek. Hmm. am na ñoo xam ne gëmuñu Khalifa Sall duñ dem fenn duñ dem sax inscrire ah. am ñoo xam Déthié Fall la ñu gëm. bu Déthié nekkul candidat duñ dem sax inscrire te élection période de révision des listes électorales la. Yewwi Askan bi ne na candidat bu nekk ku bëgg a nekk nga dem uti. parce que élection premier tour mënul nekk. ku la gagné premier tour c'est rare nga gis ko. léegi la programme de Yewwi c'est quoi. candidat yi day dem uti boo gisee ñu ma xalifa ñu ngi ci àll bi parce que zone yooyu ñoom foofu fa sàcc yëpp fa nañ ko doon defee. loolu moo tax ñu bàyyi. leader yëpp deuxième tour ngeen ànd. waaw deuxième tour nag. ngeen ànd le candidat de Yewwi. incha allah sa ñaari candidat Yewwi mooy. mais nag ànd leen àndu nawle quand même bu ngeen di ànd da di waxtaan nag di yëgoo. Yewwi waaw ah non problème. non non ñoom ak wallu la. non wallu non mun naa am effectivement mun na. waaw mun na am ay erreur baax na mun na am ay erreur c'est vrai li nga wax dinañ ko def dinañ waxtaan ak ñoom gën a waaw mais honorable balaa nga naan am da nga fay ne jamono yi ñi ngi dem élection à onze mois des élections amul benn candidat bu mën a waat ni man candidat la Sonko mi ngi ci ay mbiram Khalifa mi ngi ci di xaar amnistie keneen ak keneen mi ngi ci situation boobu Macky Sall dugal leen ci nii buñ ko tegoon ci yoon moom moo warul bokk waaye fi mu ne nii kenn bokkagul est-ce que nekkul ne xeex bi ngay wax assemblée foofu la war a njëkkee maanaam taxawaay ci ni ñu lett leen baa ñu firi leen ngir opposition bi seen candidat yi mën a taxaw mais fi mu ne. est que loolu du yee fitna Macky li muy def mooy li mu li mooy yee fitna à onze mois des élections kenn mënu xam kuy candidat moom nag mu yónnee ay mbokkam ne waxal leen ma man candidat la parce que bés bu ko waxee réew mi tàkk mais mooy wax ne waxal leen ma doo dégg mukk mu ne candidat la xam nga loolu mooy kon xam na nekkul ci yoon. mais ce que yaakaaru leen ni. Euh, parce que déglu naa Khalifa mu ne euh, moom ni mu xamee sawaay ak li mu yaakaar euh, du ko wax dañuy xëyee xëyee rek. noonu lay def ñu ne validé nañ candidature. mais loolu la. waaw xam lu muy def du wax de Macky Sall fii ba dépôt conseil du wax ay nitam la yónnee leen dem leen waxi. waaw ba pare nag mu ngi def campagne. léegi day bàyyi ba conseil constitutionnel. Ah, ay nitam leen parce que ay temps ñu bari ñu ci wax. saado invité bi. Ah, voilà. ay temps ñu bari ñi prononcé wu ci ci camp ci troisième mandat bi dañ leen a dàq. ñi ñu wàcc leen ñi ñu sanctionné leen. pourquoi ngeen am ni xelu léegi nag ñëpp képp ku ko wax ne ko dafa léegi day financé ay nit ñi def meeting di wax ne koy investir xam nga léegi leer na. yëpp du bokk ñooñu lay daan ñooñu lay daan Sori Kaba mais ñu ne ànd na ci cela veut dire que moom léegi mu ngi léegi mu ngi déroulé campagne am tere ñun ñu bokk jam suñu bopp naan damay def euh, amnistie nu ñu mun a modifier code électoral en trente minutes ñoom assemblée voté ko mu jeex tàkk. kon yow si loolu ngeen ànd ci code électoral bi ñu soppi mais non moom moo ci dugal loo xam ne wax dëgg yàlla bokkul parce que gis nga fi justice moo yor lépp moo naan sànnu jonn sànn jógu am nga droit def lii am nga droit am nga def lii bu condamnation amee justice mooy wax ne tu es condamné lii moo ci tegu lii moo ci tegu. la justice n'a jamais demandé à quelqu'un de dañuy dindi ay droits civiques am. Euh, ba ci Karim Wade aussi ba ci Karim Wade mu dem dugg ci code électoral loo xam ne lu doy waar boo amee sax sursis sursis six mois doo bokk xam nga loolu yëfu cest à nit ki mu il faut mu ñàkk élégant boo xam ne cest à ñàkk non vraiment njiit njiit dafay yaatu njiit dafay généreux njiit day bëgg peuple am mais bu ne yow da nga muus sa muus yëpp lan la ruse ruse du muusaay c'est-à-dire ñun on pense que ne nax nit. loolu mooy xam-xam li ñu dugal ci code électoral xam nga ne xëy suba ñëw na la def nga nàngam. xëy suba sursis mais xeex boobu a a xeex assemblée. mais xeex assemblée mais dafa xaw a des ci seen côté. non non ñoom mënuñu am 80 députés 80 députés yooyu. maanaam man man man man man la personnellement. man dama man am déception. ci assemblée man bi nekk 80 députés opposition man dama jàppoon ni. léegi nag eh. opposition day am doole pour mën yenn yu dul yoon mu mën ko dindi mais bu dee ni loolu day wéy kay seen nekkin assemblée tamit waaw am na sax 83 bu ñu neexee waa parce que tey boo jëlee deux yi Pape Diop ak yi nga jël Mimi Touré muy 83 donc xam nga am nañu majorité foofu nañ lay war a liggéey nag foofu nañ nag wax dëgg yàlla tout toute l'opposition na ñu déggoo muy ñun Yewwi muy wàllu noonu est ñoom waxtaan nañu wàllu aussi defe naa dans la semaine dinañ waxtaan ak ñoom ngeen bëggaat sitting mooy deuxième. sitting mooy dem te sitting bi deen invité wàllu deen invité wàllu bu baax a baax. cette ah. fois-ci deen invité wàllu. Ah, waaw maa ngi leen di lancer appel fi sax. boo lekk euh, li euh, président Birame Souleye di dox ak ak ak Lamine Thiam. ak non inscrit ñu ñëpp bu keroogee ñëpp leen leen invité nag sénégalais yi xam ne invité lañ ñëpp. d'accord ci loo xam nag kenn waru ko bañ parce que lii moom. kaay ñu liggéey la. règlement intérieur moo ko xam ku ko bañ rek. Mm-hmm. mooy am na leneen loo bëgg. yéen daal leen naqari mooy mépris bi. waaw mépris bi seen parti ba bu dee ay liggéey ak ca war nañoo mën a ñëw. ñu ay ko leen rek. parce que mbirum liggéey la rek. waaw waaw askan wi la non non wàllu euh, man xam naa leen franchement xam naa dinañ ñëw. wàllu waaw dinañ non moom APR lay wax de. non ah, dama ne. APR ñoom. Ah. bu dee ay liggéeykat ak fa war nañoo ñëw. ñu mel ne duñu liggéeykat. Ah, duñu liggéeykat. Hmm. wax dëgg yàlla duñu liggéeykat gis nga fi nekk nii mission yëpp assemblée dem nañu ñu ngi bitim réew de. ah bon ñun du ñu di nga xëy suba rek ne gaa yaa ngi mission fi ne ñu ngi salon de l' agriculture. Mm. ñeen ñu Dubaay ñeen ñu ngi finalement. ñu ñoo fi nekk di liggéey mais ñoom. saluñu la ñu ngi ci mission yi mission bu nekk. bu ne mais mais man waaye mais temps bi jeex na malheureusement parce que mënuma mënuma comprendre ñu xañ ñi oto jox ñuy oto. d'après ah, li nga expliqué. dina dama koy wax rek mu Omar lan ngay tëjee parce que loolu bu am na man comprendre ko. loolu la doo ko fi ñu bàyyi la nga tontuwaale foofu tëjaale. waaw xam nga oto yi. da nga gis sax koo xam ne am na quatre oto. benn député. waaw parce que ku demee législature ba la passé ñu jox la deux. nga defaat bi ñu jox la deux muy quatre oto. te am na loo xam ne nag bu ñu ko toppoon day indi xeex tous les membres de bureau bu loolu neexoon tey mission buy def day dem luy oto. d'accord parce que c'est des voitures foofu looy donc li may tàggatoo rek mooy lancer un appel à Macky Sall. ak kilifa diine ga ñëpp ñun ay taalibe lañu. diine rek nañu gëm Khalifa sal taalibe tijaan la. Sonko suba ngoon ngeen gis ko fële. Touba Touba. macha allah tu vois hmm. mais tarix la yoon. tarix la bokk. Hmm. xam nga donc Déthié Fall. Hmm. ci waa kër Cheikh Ibrahima la. donc amuñu problème ñun. ñoom ñoo ko bëgg a campagne. Sénégal ku nekk am nga foo jox foo bokk léegi wax président mooy ñaar yi fitna yi président bu mu nekk candidat mu nekkee candidat dina indi coow ci réew mi. président assemblée nationale na woote la réunion de bureau. statuer sur nos propositions de loi ak nos questions d'actualité lii moo lii moo mën a jàmm am bu ko jàmm bu ko amul mm. jàmm du am ci réew mi